salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi safoo El Vision Média comme ni ma safoo di leen ko wax chaque jour rek ci seen émission bi ñu leen di jagleel muy 20 minutes avec ma daralaat nag tey ci benn ci 20 minutes avec beneen daanaan ah mun naa ni benn leader bu ñu naan Ibrahima Traoré Diallo ñuy def présentation dañ koy bàyyi mu nuyu Ibou nuyu nañ la. ah ñu ngi lay fay aw Alain. vraiment di la di la sant si invitation bi nga def euh, si mm-hmm. mm, vraiment. Mm. suñu nee Ibrahima Traoré rek xel yi dina am fu mu dem. waaw Ibrahima Traoré suñ ko waxee dafa nekk un jeune un jeune cadre bu dëkk Géejawaay jàngee Géejawaay màggee fi Ibrahima Traoré école barak la dafay sëyi. école barak bi nekk Géej école barak bi nekk Géejawaay. Uh-huh. Euh, côté banque islamique. Uh-huh. jóge fa dem Njarka Diagne mooy bi ñuy wax école 26. Uh-huh. jóge fa dem Ñëmbat Mbodj def fa deux ans. jóge fa dem ODCM ODCMP Ousmane Diop Mbapaati bi nekk côté Soumbédioune mhm. euh, jóge fa dellu si banque islamique mhm. amee foofu BFM ba mu amee BFM foofu dem lycée Parcelles Assainies foofu la amee bac mhm. ba mu fa jógee dem université Cheikh Anta Diop def euh, droit waaw ma génn ma am ma nekk depuis 2006 maître en droit des affaires juriste juriste donc maître en droit des affaires jóge fa depuis 2012 je suis historien du droit. Mhm. en même temps bon occupé quelques postes. Mhm. comme au niveau de la ville de Guédiawaye. Mhm. comme euh, conseiller juridique du maire. en plus euh, comme secrétaire général adjoint. Je suis occupé secrétaire général secrétaire général. de la ville de Guédiawaye. Je suis inspecteur général des services. de la même ville. Je fa euh, chef de division au niveau de la caisse des dépôts. Mhm. chef de division juridique et fiscale Oui, Fi Aliou magam fi magam wax nga passage école et tout. Mhm. Euh, dama xam sa entrée en politique. sama entrée en politique man euh, mouvement syndicaliste la di mhm. université ma nekkoon ci nag euh, di ci doon yëngu lool lool lool lool. ba ma fa jógee avant maa terminer sax ma gis euh, injustice yi nga xam ne amoon na. ci côté euh, kii nga xam ne tey mooy président Macky Sall. vraiment ma adhéré woon ci loolu depuis 2008. mais xaw ma woon actif noonu noonu trop. mais bi ma gënee actif mooy deux en 2012. 2012. 2012 vraiment il fallait que. Euh, Sénégalais am taxawé vraiment non la taxé comme Sénégalais le président Macky Sall coalition ba mais tebo rek tebo tebo tebo rek di jappalé Macky Sall dafa am fo jaar. waaw waaw mouvement syndicaliste la mouvement syndicaliste bi après ya Aliou Sall. waaw waaw loolu li wax ni lu yàgg la. Mm-hmm. Euh, boobu en 2008 la. Mm-hmm. Aliou Sall mu ngi doon parti bi tamit côté. Euh, waaye bu ñu fa jógee. Mm-hmm. bu ñu ñëwee ba ay de en 2014. Mm-hmm. parti APR xawoon na am noo xam ne noonu la meloon. Mm-hmm. te man vraiment vision bi kii ma ko woon noonu. en 2014 Aliou Sall si la ñëwee. ma déglu ko xool xam ne principe am yi muy dawee. lii laa doon xaar si politicien ma ànd ak moom ñuy politique. kon yow bokkoo ci ñiy kaas naan Aliou Sall dëkkal Guédiawaye.

toujours c'est xeex rek ci principe lay nek Aliou bu muy ñew fekkon na ma am fa ma nekkoon di ko di and ak mom di politique. mais vraiment bi Aliou ñewé ba am nu mu taxawé vraiment dama xamné ah ki moy waa ñu doon xaar vraiment ma and ak mom muy and and gor nak and ak mom comme samay morom. mu doon and gor. noonu lañ def ba mom mu jël mairie Guédiawaye mu bayilo mu fa ma nekk. ne vraiment dama la soxla sama wet. mom man ak samay morom vraiment mu mu jël ay jeunes ñu wër ko vraiment di liggéey liggéey bu mucc ay fale ci ville de Guédiawaye ni nim la ni la ni la Aliou Sarr récupéré yow yomb na trop yow nga xamné leader nga yow yow Ibrahima ñu dogu a dugg ci émission bi nak Ibrahima yow leader nga waa Guédiawaye ngi ci bari bari gëm nañ la ñu ngi dégg sa tour yow nga bañ ba mu neex la nga ñëw nangu Ibrahima waxal lan la Aliou Sall def ba nga nangu ay proposition non xam nga dafa am histoire bëgg mo di dugg sax muy gudd mhm. Aliou ba muy ñëw fekkoon ma nek ci parti bi. di and ak euh, sama frère Lat Diop. di and ak mom ñuy politique. mais vision bi nga xam ne. moom amoon na ko demoon naa benn instant doyatuma man ko ah grand. maa ngi ci yoon parce que xam nga en en tant que militant discipliné. su parti dajelo décider dara. da ci and nga dem. Aliou Sall ba mu ñëwee amoon na coordonnateur bu fi euh ñu koy wax Père Jim Ndiaye ma koy nuyu au passage. Père Djibi Ndiaye bi ñu organisé woo Aliou ñu jox ko ordination bi ndax waa Guédiawaye parti bi ñëpp ko wóolu ñu jox ko coordination bi. di mhm. parti bi ñëpp d'accord loolu vraiment en tant que militant discipliné am ah, na ko grand maa ngi ci yoon ba de man militant discipliné rek te su ma sañoon kat nga topp ñu dem. Mhm. Mhm. waaw noonu laa demee vraiment te Aliou Sall yi nga xam ne teniroon na ko ma déglu ko ah ni nga xam ne waa Guédiawaye nangul nañ ko. xam naa ne kii mooy nit ki jar a en politique. nit ki nga xam ne rassembleur la. nit ki nga xam ne jël na Guédiawaye def ko benn. Aliou Sall mu jël mm. Guédiawaye def ko benn. Mm. Aliou Sall nan la jëlee Guédiawaye def ko benn te Aliou Sall yow léew Ibrahima Tra yow sax yow yow il faut que yow ñu wax ci wax ci yow Ibrahima Traoré mm. da nga wax léegi say wax nga ne Lat jóob nga jóge ñëw ci Aliou Sall lu tax nga jóge ci Lat jóob ñëw ci Aliou Sall te lépp nekk APR. non du du jógee dem. jóge dem la. du jóge dem jóge dem la jóge dem la. soo xoolee man dama bëgg chaque instant. Mm-hmm. su may def politique. Mm-hmm. may activé wu di yëngu. Mhm. di di di di dem si réunion yi di waxtaan ndax noonu ngay mën a def ba mën a organiser wu pour jëriñ population bi. Mhm. boobu noonu avant Aliou lat moo fa nekkoon noonu instant boobu noonu mais mhm. ànd ak moom. moom gis naa ne il était actif. su su ma nee actif sax actif boobu noonu dafa fekk dafa am rôle boo xam ne dama ko si joué. man ak samay morom. parce que dafa toogoon ñëpp toog mu ooma ne ma man kat ah soxla na la ci mhm. li akh li akh li man ko yow bien que ne ko APR mais si coalition makki 2012 nga bok mhm. mais dañ si and euh, jappal la ma ñew di and ak mom fekk ko nak ak Karim Ba bobu terrain bi wéetoon na lool mhm. ma nek fa lu ne ma defal ko ko lu ne ñu defal ko ko nak lu ne ñu defal ko ko ba ba mu jëlee ci ndam ndax so soo doon mesurer sax lama ko defal ballon bi retourner wul manam delluwul donc mais lolip amul solo mais ñu accompagner ko dem dem dem ak moom ba turam egg peut-être fi nga xam ne euh, eggoon na fa jamono jooju. Mhm. waaw boobu peut-être tey ñu bëri xamuñu loolu noonu. Mhm. loolu amoon na fi mais vision ba mu am politique. ak man vision ba nga xam ne am naa ko. Mhm. dafa dem benn instant bokkutul te vision ba ma doon gis xool si politique dama ko gis si Aliou. ma dem ànd ak moom politique parce que xam nga politique souvent dañu naan topp si ginnaaw diw topp si ginnaaw diw déedéet. topp si ginnaaw diw est-ce que compal gi bokku du topp si ginnaaw diw. mais parce que man bëgguma topé mm-hmm. mais damay bëgg di and ak nit ki mm-hmm. parce que en politique da ngay and ak nit ki pour ngeen di bokk li ngeen di gis bokk li ngeen di euh nek au même niveau comment dirais je euh, d'information pour nga xam lan mo xew mais top ci ginnaaw dafa xaw euh, gauche quoi mm. donc ñun man en parlant de man so xolé alu Sall ba may ak mom dafa and ak man àndum nawle àndub nawle maanaam li nga xam ne jàpp na ne mënee naa ko fa mhm. chaque instant foofu la may oo mhm. mu di fa nekk te man loolu dama ko soxla si en politique donc looloo tax man ma ànd ak moom peut-être loolu awma ko feneen awma bi nag di àndu nawle di àndu gor waaw di ah. àndu nawle di àndu gor Aliou Sall mhm. ñu ne dëkkul géej waay waaw foofu laa doon jëm si loolu uh-huh. loolu dama ciy tontu léegi mais loolu yow yaa yow loolu yow yaa njëkk a def sorti parce que seetaan nañ ko fii ci benn réseau benn site

waliyaan mooy lan waliyaan mooy ku ñëw ñëw fekk leen yéen waa enseignant goog waa géejiwaay mu ñëw dëggal boppam dugg seen biir yéen ngeen dooleel ko man de Aliou Sall raqam laa te juddoo ma géejiwaay waa mais juddoo woo géejiwaay mais damaa jóge feneen ñëw la Lat Diop jóge feneen ñëw waaw Aliou jóge feneen ñëw waaw léegi soo gisee ma ne léegi waaw géejiwaay la dëkk léegi waaw damay def kii dans le temps mm-hmm. si temps bi lay joué mm-hmm. n'importe quel temps bi nga fi ñëwee temps bu mu ti doon mm-hmm. ñëwa Guédiawaye nekk nga fi am nga volonté nekk fi donc yoon may na la nga dëkk fa yoon may na la nga voté fa nga dëkk fa d'autant plus que da nga ñëw waa Guédiawaye accueillir la nangul la ngay dawal ñu gën la gëm ñi la gëmul woon sax di la gën a gëm kon jàpp naa ne loolu pour man kooku Guédiawaye la dëkk ndax dañ naan dañ naan bu la dëkk dëkk ba bëggee demal bu la dëkk bu bëggul toogal. Mhm. mais Aliou Sall dëkk bi da ko bëgg. waa Guédiawaye da ñoo tànn Aliou Sall lay jox ay preuve mhm. tey Aliou. Mhm. non seulement am na kër Guédiawaye. fii la dëkk biir Guédiawaye. Euh, cité Adama Diop. Aliou en dehors de dëkk bi sax moom dafa dem ba dafa ñooxoo ñooxoo ak waa population bi. nekk échangeante ay dafa mel ni échangeante ay deret soo jëlee par exemple Aliou Aliou ay turandoo ma ngi doxantu Guédiawaye. machallah allah. ku ci melni sa la yow. waaw mm-hmm. Aliou Sall Traoré mu ngi fi Aliou Sall Ba mu ngi fi mm-hmm. Aliou Sall mu ngi fi mm-hmm. Aliou Sall mu ngi fi bu ma au passage Aliou Sall ngi fi donc xam nga dara fort ni ko si ni ko si Ibrahima jël ngeen Sall ngeen ko tuddee ngeen ko ay doom Aliou Sall yi moom daa bari loolu sax bokku na ci enquet bi Aliou Sall Traoré yeeg Aliou Sall Guèye yeeg bari na géej waay mais dama fu may ñëw nag pere ñëw ah da nga ko nar doom pere gu ñëw moom lu ne mën na <laughs> ndax xam nga nit nit nit li ëpp si moom ay yëg-yëg la ah jikko bi daal yéen moom moo leen moom moo leen séduire daal maanaam jikko bu rafet la yor mm-hmm. jikko bu baax la yor mm-hmm. vraiment te dangay ngay ànd ak moom waaye jikko jikko jikko mën a compalaate jikko mën a joxe xaalis bi non xam nga ñun waaw man tey comp mënuma yóbbu ah te Aliou xam nga ne moom kuy dimbale doomu aadama yi la ndax sénégalais yëpp soo xoolee ku si am ku si dimbale sa morom ku si jàpp gën a ëpp doole sa morom di ko dimbale. Mm-hmm. donc Aliou Sall position boobu man samay dërëm ak samay ñaar bi samay morom. yi nga xam ne yittewoo nañ ko. Mm-hmm. keneen ak keneen yow miy toog subit xam naa ne ko def. Mm-hmm. donc noonu lay demee du comp boo xam ne. comme corruption comp corruption moo bon. diw kaay ma jox la nga def nii. déedéet loolu su ko nit defee rek jënd nañ ko. jënd leen ko mais Ibrahima Traoré yor nañ la yow da ngaa mën a tooñ dama lay dagg foofu hmm. waaw da ngaa mën a tooñ parce que yow mën a tooñ mbokk téléspectateurs yéen ak may xool nga xëy seet site internet seet si la nga de yaag tafaa buuju toog moom sax moom dinaa ko dalal moom moomu tafaa ngeen dem toog seen salon jàpp Lat Diop ku wax jox sa morom ku wax jox sa morom te yow Lat Diop nekk sa frère nga bokk ak moom koñ mu nekk un un grand frère ci yow amul loo waxul Lat Diop nga ne Lat Diop na bàyyi Aliou sàll Lat Diop dëkkul Géejawaay wax nga ci vidéo ba wax ni Lat Diop ay courrier am Maris la koy jotee te yow Lat Diop nekk dëkk Géejawaay gii si cité des enseignants gii Ibrahima loolu ci tooñ la bokk wala ci lan la bokk. <laughs> Oh, eh. bàyyil tooñ. non non loolu loolu dama naan du tooñ benn constat bu ma def la rek. xam nga tey man baaxewuma ma sax nekk si tele yi ak di wax. Mm-hmm. parce que bëgguma ko. parce que xam nga wax dafa garaaw su mm. xasee ba génn rek mm. day xew doy waar mais la Diop li ma mës a génnee ba wax si moom musuma wax wax bu déplacé wu musuma wax wax boo xam ne waxu tooñ la mm. lépp dama ko teg si cadre politique bi donc benn constat bu am la dem nañu élection Aliou di coordonnateur benn Bokk Yaakaar au niveau de Guédiawaye ñu dem am suñu pourcentage bu baax borom bi def ñu génn premier tour tey su dee nit ki yow liggéey nga si liggéey bi est-ce que di nga dingat résultat boobu est-ce que soo dingat sax est-ce que dang ko wara dingat publiquement mhm. est-ce que dangay andal war nañ toog di wax publiquement di di di di victoire bo xam dañ ko am mu tak mhm. hmm président ko prestation de serment dara xewagu mhm. nit genn wax donc loolu non en tant que militant discipliné il fallait que ma genn mom lan la wax mom lan la wax lan la wax non wax ji presse bi lam def lam bind moy dafa ne résultat bi ñi am

temps temps liggéey lañ toll. Mm. mais kenn mësul dégg sama wax. Mm. ma jël wax bu ñaaw. Mm. teg si deru euh, la mais ay courrier moom fan la koy jotee. courrier moom Maris la koy jotee parce que foofu la dëkk en réalité. man sama kër sama kër soo soo demee enseignant. nga fëgg des 33. damay génn wuyu la wala ñu ne la dafa génn xaar ko. wala genre Aliou soo demee bari ili fëggee këram. dañ lay ubbil nee la xaar ko wala utal audience wala kii mais mu ngi ndax foofu la foofu la nekk. keneen ndax keneen noonu. mais moom bosam Anne Maris la koy jotee. Anne Maris la jotee parce que fi mu dëkk fii këram nekk noonu. Mhm. kër famille am la. Mhm. moom dëkk foofu mais loolu yëpp amul solo. Mhm. parce que xam nga réponse pour réponse rek. parce que dëkk fa ñu ne ko dëkk fa. loolu noonu yëpp amul solo. ba tey xam li am solo. Uh-huh. xam li am solo. soo nekkee si parti. dynamique bi yëpp di demee nii. vraiment André si dynamique nga dem su dee d' accord ci. kilifa nga. yéen loo leen gis nga kilifa gi nga war a waxal. nga wax moom euh, waaw léegi defal nànk euh, Lat job pour APR la. Mm. parce que Macky Sall lay liggéeyal. Mm. Aliou Sall comme li ma waxoon Boubacar Kébé rek. Mm. Macky Sall lay liggéeyal ndax c'est son frère. léegi manque d'entente boobu te ñun ñëpp ñu dëkk yéen ñëpp ngeen dëkk Géejawaay ah Lat job yow ne Lat job nga nekkoon ba mu neex la nga dem ci Aliou Sall. fofu nangu woo wax parce que ne nga dalaal proposé euh, déet ci fi nga nekkon Ibrahima da ngay nangu ci ci Lat job nga nekkon non du nekkon wa nek wa wa da ngay don and di liguey mm-hmm. ke proposer na la lo xamanteni yow proposer ma dar par parole wa par parole la wa wa yalla xamna ne mm-hmm. sama diggante ak Aliou amul loolu andu mm-hmm. nawle la andu gor la te mu goré lol nak loolu la fa nek wa ba pare politique bi nga xamne vision bama ci am bobu la yor wa legui nañ wax ci entente bi wa entente bi entre Aliou Sall ak ak euh, ki nga xam ne mooy Lat Diop parce que yéen bu fa relation bu mm, kii nekkoon mm-hmm. est-ce que doo foog ni ñoom ñaar benn leader mooy am géej waaye mais ku nekk bëgg a postuler ñaari leader non dama damay fàttali lenn ba pare mm-hmm. pour euh, nit ñi xam ko mm-hmm. diggante Aliou Sall ak Lat Diop peut-être début bi en 2014 xamante wuñu woon ñoom ñaar ñu jàkkaarloo fi jàkkaarloo bu metti Aliou Sall tegal ko lu dëgër Lat Diop di jàmbaar loolu nag taxaw taxaw taxaw ni mu war a taxawee

pour man euh, son vrai problème problème entourage là. entourage am problème entourage. Mhm. parce que xam nga leader bu ne. leader bu ne image bi ngay faral di yor soo deful nànk ñi ne sa ginnaaw la wala ki ne sa ginnaaw. dañ mhm. naan buur buur aayul daal dag ya ñoo aay. waaw mën nañ ko waxee noonu tamit. Mhm. mais juste pour wax rek ne. mais Lat job, am na ñooy ànd ak moom nekk biir cité ba man nekk ak ñoom ñuy rombante suba ngoon di waxtaan séq jàmm salam. ñu ngi ñu koy defaral liggéey bu rëy ku si mel ni Moustapha frère am la kooku dafa taxaw position boo xam ne day jàppale Lat job mm-hmm. te du ko nax mm-hmm. ku si mel ni Sidaat mm-hmm. ku si mel ni Sidaat Sidaat du nax Lat Diop parce que frère la ñoo bokk deret dafay liggéey Marème Diong mu ngi fa Marème Diong mu ngi fa di fa def liggéey bu rafet ñooñu duñ ko nax mais soo jëlee boo yoo xam ne mosuñu am expérience en politique musuñu dox dara politique musuñu jiite association cité musuñu jiite association koñ musuñu am benn expérience nga teg leen tamit ñu lay jaxase nit ñi su boobaa da ngay yor comportement boo xam ne day xaw bizarre parce que ma wax la jamono ji Aliou Sall euh, lat gënoon metti duma fi tudd benn tur sax di wax. Mm. bi jamono tur du tax doo tudd tur parce que du ma fi may benn bojo bojo tour buzz mais je rek wax ne. pour uh-huh. pour mu leer. Uh-huh. parce que li may wax ni. Aliou war na xam. Mhm. jamono ji gënoon metti Aliou ak Lat jamono ji gënoon metti nga xam Lat ko gis Aliou Sall. Mhm. Aliou Sall bu ko gis peut-être. Mhm. dama naan dem kër Aliou ma fay fekk nit kooku may wax. di ko fa fekk. te la jub xamul loolu. kooku moo daan jaxase Aliou ak Lat di jaxase Lat ak ay nitam. moom bàyyi na léegi wala ba tey mu ngi jaxase. kon moom ba mu ngi jaxase ndax entente bi amul. soo xoolee vague bi jógee feneen di ñëw. si la di dem. Mhm. Mhm. du comprendre. Mhm. koy jaxas ay nitam. mais xam lolu sax waxu mbedd la mais xam nga parfois dafa bax rek nga xaw leral ben kat moy monter ay nit parfois. ñuy di wax ay détails genre te lolu amul sens man si Kébé si Alat Diop la nekk la te bi passé mom la passé invité won mu ni euh, sen Lat Diop beutam ci maire bi la ko pare ngeen oh, bàyyi yéen Boubacar Kébé Lat Diop ak réalisation Lat Diop yi mu wax ci plateau bi yëpp hmm. Lat Diop a ngi liggéey géej waaye de Boubacar Kébé hmm. euh, suivre naa émission hmm. parce que émission bu amul saga wax bu ñaaw naa ko déglu muy sama petit frère nag ñu dëkkandoo koñ ba mu nekk fa di fa def liggéey bu rafet waaw dafa nekk fi dafa def liggéey bu rafet am mouvement am MDR am di def liggéeyam bien que amul doole boobu mu fi wax sax mais <laughs> moy mu def liggéeyam correctement. <laughs> koku amal na njëriñ job Diop. Mm-hmm. dëggantaan amal na njëriñ parti bi. koku am koku mom do gis ci detail mm-hmm. vraiment mu don ku yaru ku ko xamne dañ ko soxla. Mm-hmm. mais quant à Aliou dañ koy jëlé ci mairie bi dañ koy jëlé fé lool pour man yenn yépp population bi la sax. xam nga population bi weesuwul. population bi fal maire am di bégué maire am di ko sa saa su nga tok nga ke dama ko fay jëlee. pour quelle raison dëkk fi nga ne. loo xam ne outil waxu campagne la woon rek. boo xam ne c'est dépassé. nga nekk di ko fi wax. dañ ko fay jëlee pour lan. Aliou Sall dañ ko dañ jël maire bi population bay ko jël. jox ko maire bi jox ko mairie bi. Mhm. y compris Lat Diop. Mhm. ndax ay nitam. Mhm. donc bañ ko joxee maire bi dafa def liggéey bu rafet parce que Aliou Aliou euh, dafa présenté. nga citer ay ay Aliou Sall. Aliou si mhm. mais la mhm. Aliou parce que réalisation souvent gars yi mais peut-être. Mhm. parce que je parle en connaissance de cause. suis je la mairie Aliou jeunes cadres parce que l'acte de la décentralisation. dafa pour nga comprendre ni ngay faw nga xam texte la parce que première année dafa première année acte mhm. programme sax da ko dako moo won trois mhm. motax so wax gouvernance efficiente. Mhm. loolu la def. ay jeunes. jeunes yi xam li def. mu mairie ba vraiment ñu je def liggéey rafet. côté par exemple euh, éducation éducation Aliou biñ ko njëkkee fam première année bi li mu def té mu ngi def ba légui camp des jeunes mm. camp de solidarité mu am ben association bu nek euh, Yvelines ay jeunes yu def BTP mu jël len plus de 20 ou 30 une len fi Sénégal. un jeune un permis kan moko ko fi defoon. Aliou Aliou mooy def yooyu yëpp. Mm-hmm. mooy def yooyu yëpp parce que xam nga xam nga maire Aliou Aliou Aliou Sall réalisation réalisation am. Mhm. di ko fi wax sax pour man day jël temps bi. Mhm. man su ma sañoon ma may invité waa beneen émission. ñu mhm. wax ci mais dinaa ci kon dinaa ci neul wax. waaw su dee waatal deux wala trois rek ndax xam est-ce que egg na quinze sax ay ay ay ay six ngeen di am ay 7 yoy rek. tey lutax ma commencé ak 3 bi soo demee article 16 dafa bëgg a dimbali villes yi. article seize euh, euh, code des collectivités locales. dafa né les villes mën nañu am partenariat ak état bi ak yenen partenaire Aliou Sall foofu la jaar. motax tax mu jël partenariat. def ko. ou euh, cheval de bataille am. boobu moo waral Yvelines bi ma lay wax. cheval de bataille boobu moo tax mu am partenariat ak état bi moo ko waral tey mu réaliser stade Amadou Barry soo fa demee da gis changement bi. stade Ndiarème. loolu côté sport la da nga koy gis. Euh, deux allées deux allées Sam Notaire Serigne Saliou da nga ko fay gis. Mm-hmm. mu rafet lool nga gis fii ndeysaan mairie bu bees hôtel de ville bu bees bi. Mm-hmm. waaw mu rëy lool. mosquée Thierno Souleymane Baal yow sax xam nga ko ndax dégg naa sa maam lañ ko tuddee. sama waaw ah, sama maam waaw. <laughs> Ah, boobu moom la waaw boobu nangu naa boobu sama maam la ko tuddee waaw kon ça enquête nga si man waaye enquête naa si yow <laughs> donc donc mosquée boobu noonu di mosquée bu am solo. Uh-huh. parce que tey dañ naan état rek mais en partenariat avec la ville de Guédiawaye. Uh-huh. tey si loolu la demee. tey Boubacar yow kii Aliou soo demee éducation. Uh-huh. ba tey Aliou Sall mu ngi réhabiliter chaque année ay école. Mm-hmm diko réhabiliter réhabilité fekk to école bu amul toiture mu defaraat ko tabax yi yooyu yëpp fi nek mhm. so xolé pizza bi. pour internet et services associés. Mhm. soo xoolee ENO bi mu nek ay ay ay ay projet yo xamné mu ngi en cours. Mhm. yenn yi jeex na. yenn yi euh, c'est déjà euh, géré. dafa nek révolution côté internet. Aliou Sall def na ko fii bi géej waay bloc scientifique. Guédiawaye mosul am bloc scientifique jàng nañ ba jeexal mosuñu fi gis bloc scientifique Aliou ñoo def ko chaque année mu génnee plus de deux cent mille cahiers di ko jox élèves yi pour pour gratuitement hmm? Hmm. les fascicules la fascicules yi dafa dajale ay kàngam Guédiawaye ay prof en science mu jël leen rassemble leen pour ñu defal ko fas ay fascule hmm. ñu defal ko mu produire ko. jox ko élèves yi. mais damay ñëw ci yow réalisation Aliou Sall damay ñëw tout ci yow. ñu tëjee fa ci yow. sa sadik gi sa sadik gi nga nekkee géejawaay. man mi <laughs> da ngaa wër wax lañ laa wax ci man wax nañ ma ci yow Ibrahima yow da ngay doxantoo bi gon wax nañ ma ko parce que dama ci am lu ma leer nag. Mm. parce que élection locale bu mille 2014 ci école Njarka Diagne génne loon fa gars yi gon ñëpp xajal la yaa ko def. yow danga am autorisation port d'arme. xam nga loo xewle. Oh. wala wa waxal waxal ci waxal ci gon bi. Oh, xam nga xam nga xam nga xam nga.

teguma ko fenn fu ko Aliou teg laa ko teg. fu ko Aliou teg mais mhm. nag sama bopp bi teg naa ci attan na lu ne. sa bopp bi attan ñun ay jeune cadre lañu. wax la wax la wax la wax wax la wax te dégg-dégg la laaj. donc du man duma viser visé wu mairie visé ma dara. man fu Aliou teg bëtam. Uh-huh. vraiment foofu laa teg sama bët. foofu nga teg sa bët. foofu laa ko teg fu mu ñuy wax rek foofu la ñu defee ko noonu di def appel. Mhm. di def appel. Mhm. vraiment ñi nga xam ne ñu ngi politique les jeunes. muy jeunes yi nekk si. sama frère bobu mm-hmm. Lat Diop Lat Diop wa fof la bëggon ñu tejé fa. di len wax né mm-hmm. politique nga nek fo xam da ngay jang politique. Mm-hmm. daf ci am solo. fo xam da ngay jang nga xam da yaa am expérience. daf ci am solo. wa mais amna tam benen rumeur bo xam ne mu ngi daal hmm uh-huh. sama frère. Boubacar. Lat Diop Lat Diop wa né ko eh. ba muy and ak Aliou. Uh-huh. sur ba ci législatif yu mujj yi nii. parti bi dafa dafa dafa gënon équilibré. dafa gënon neex.

ñom ñi def ay cogère euh, parallèle bañ démé au niveau du palais dugguñu xam nañ ne cogère boobu amul existe wu mhm. donc nit ki doo nax sa bopp mhm. tey parti boo xam ne yaa nga naan da nga da nga def kii contraire te looy dépensé yaa xa génne sa poste nga dépensé ko mhm. amul sens seen wàll mu ngi si coordination bi elu yor nañ ñëw jël ko foofu nekk foofu si instance bi ñu liggéey ensemble Ibrahima Traoré nee na yéen ñi nekk si Lat Diop ngeen ñëw ak ak Lat Diop ba pare pare ngeen ñëw fekk si Aliou waa jeunes yi nga xam ne ñu ngi doon ànd ak euh, Sonko waaw ak yeneen parti yi ay médicaments. yow daal da ngay yow daal da ngay iriwaate yow léegi xam lu tax ma lay wax. xam lu tax ma wax loolu. Uh-huh. parce que dama xam ne deuxième mandat bi réalisation bu ne da ci am. Uh-huh. te jeunes yi dañ si gis seen bopp. Uh-huh. kon nañ ñëw si logique bi. ñëw si li nga xam ne loolu lañ nekk. ñu travaille ensemble. jël mairie bi rumeur justice bi may dégg tamit rumeur bi. am na ñoo xam ne génn nañu wax nañ ci Ibrahima Traoré patati patata ba jamono jii loolu ñooñu loo leen di tontu loo leen di tontu. xaw ma dañoo sinap xaw ma dañoo vidéo noonu daal di koy lancé dugal ko. nga aw wax. Hmm. wax dafa doy waar maa ngi koy wax léegi nii. Hmm. waxu politique dañ koy yemale si politique bi xeex ko si politique bi. mu lu mu laaj ñu def ko ci. Hmm. mais wax boo xam dafa génn politique. doon wax ju rëy doon wax ju ñaaw. wax jooju dañ koy teg fañ ko war a teg mu dem mu demee noonu. wax wax la dafa nekk wax boo xam ne dafa. atteindre nit mhm. donc wax jooju mu ngi ci loxoy yoon mu ngi ci nek ci plateau di ci wax uh-huh. donc wax la bo xamne waxu xalé la mais quand même xalé tamit dañ koy wan yoon bi nga nek ni mhm. baxul bi mo bax même su dee dañ ko wax lo uh-huh. kan ngay sante diko gëram man di sante population way di sante Aliou uh-huh. di sante samay frère Ousmane Ndiaye ak Karim Ba vraiment di sante sama sœur Mame Diallo di sant ñëpp daal di sante ñep di sante euh, waa Guédiawaye APR Guédiawaye yëpp ak coalition bi vraiment di féliciter waa Guédiawaye tamit si li nga xam ne génn nañ ko jàppale le président Macky Sall. ba mm-hmm. tey li nga xam ne am nañ ko ñu am ko. Mm-hmm. Aïcha mu ngi noonu mu nekkoon seen émission 20 minutes avec ak ak Awa Alain Gueye ñu ci doon dalal Ibrahima Traoré. xam leneen loo bëgg a waaw di la sant yow tamit. Uh-huh. vraiment uh-huh. di la wax ne tey li nga nekk nekk jeune. Uh-huh. nekk biir Guédiawaye. Mm-hmm. di fi liggéey lu mel nii. je pense que loolu ñun dañ koy dañ koy ndamo diko ko ndax ndax ma ngi lay suivre mm-hmm. ma ngi lay suivre ndax yow suñu dara sama xarit nga mm-hmm. waaw ndax ma ngi lay suivre di la xool mais liggéey bi nga nekk di def mm-hmm. vraiment rafet na lool di la gërëm di la sant di di sant tamit waa Elvision ndax ñun fii dañuy soxla lii ñun géej waay dañuy soxla yii donc vraiment xam naa ñi si war a jàpp dinañ si jàpp. Mhm. liggéey bi gën a am doole. Mhm. vraiment loolu laa amoon lu may wax. di la sant bu baax mu nekkoon émission 20 minutes avec Awa Alain dina ko présenter tey nag suñu invité nekkoon ki nga xam ne mooy Ibrahima Traoré comme ni mu ko waxee woon nekkoon IGS inspecteur général des services bu mairie de la ville jóge fa nag yoroon fa tamit beneen ndombal tànk bu gënoon rëy muy secrétaire général nekk mën naa ne waxatuma sax affaire de politique waaye nekk frère ci ki nga xam ne mooy Aliou Sall ñuy gërëm ki mu àndal muy tamit suñu mag ju baax muy Karim Ba moom la àndal ñëw ci studio Elvision Média di leen jox di daje nag di nuyu benn téléspectateur boo xam ne mën naa ne abonné Elvision Média la te dafa bëgg 20 minutes avec loolu muy Modou Fall ak ki nga xamante ni si mooy Mati Fall caatu yaay Marème Fall jàmbaaru jigéen la moom it te avec la ñu koy gërëm baax a baax te di leen jox dig daje di gërëm nag technique bu bi waaw tey nag moom li ma leen doon wax ci jàmbaaru jigéen ñi tey jàmba jigéen ñi ñoo couvrir tey émission bi ku ci mel ni Fama sama caméraman bi yaa Seyda ki nga xam ne nag tamit moo ngi ci réalisation bi nekk ci maquillage bi muy sunu jabar jooju di Sey Zeyna madame Lo di gërëm jël jëlat gërëm bi nak diko tek ci loxo ki nga xam moy suñu DG El Hadj te di len jox di daje très bientôt léegi léegi.